ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii nga xam ne moom moo di euh, ba sekk Seck euh, ba sekk xam ngeen nag euh, Serigne Abdourahim sekk mi fi nekkoon juróom-ñetteelu xalif bu maam Amary Ndack Seck dafee bàyyeekoo ñu jébbal ko boromam alxames bi ñu génn ca dëkk ba nga xam ne moo di Cooti tey jilee mbokk yi ci euh, samedi ji njiitu réew mi président Macky Sall doon fi nag euh, fas yéene yegsi ngir rek jébbal njaalam xalifa général bu Thiénaba Serigne Assane Seck li fi xew mbokk yi moo di xew-xew bu tiis bu naqari ginnaaw bi nga xam ne rek euh, chauffeuru oto bi di ci marque AA 37 1 EC ginnaaw bi nga xam ne nag euh, dafa rek euh, jot gaare otoom ci euh, buntu résidence fii ci diwaan yu Thiénaba Seck ginnaaw gi nag la génn ci otoom dem toog nag ci benn siège bi nekkoon juste ci côté côté bi foofu nag la jot a ñàkkee bakkanam mbokk yi bu nekk nag lu doy waar xew-xew bu yéeme boo xam ne moom moo fi daal di am ci diwaanu Thiénaba Euh, jiitu réew mi nag ñu ngi koy xaarandi euh, jamono ji mu fas yéene yegg si euh, fii ci diwaanu Thiénaba Seck ki nga xam ne moo di gouverneur de région ak département bu préfet du département de Thiès ñoom nag bi ñu ñëwee ci mbir mi ñoo daal di woo ñi nga xam ne ñoo di sapeur pompier ngir ñu jël si néew bi nga xam ne tey moom moo faatu. Euh, fii ci euh, Thiénaba euh, Seck ginnaaw bi nga xam ne nag ñu ngi fiy xaar njiitu réew mi son excellence le président de la république Macky Sall.